ci dafa xaw a des euh, ñu bari jàpp ni ne da nga frustré mhm. da nga frustré te ces frustrations Abdoulaye Diouf Sarr neen moo la ko teg. bon euh, xam nga déjà nit ñi tamit dañ mën nañu wax rek. man du ma frustré poli ci ci politique ndax euh, politique su may dem damay dem engagement conviction conviction lay demee politique moo ngir parti dama lu may njëkk a politique mooy politique sociale. maanaam man lan laa mën lan laa mën a apporter lan nga mën a apporter après lan lañu lan lañ mën a apporter parti bi et mm. enfin lan ka lañ parti bi mën a donc noonu laay doxalee biir yoofu bon nekk naax euh, monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr donc def ay ay jéego si politique bi si terrain bi euh, génn nañ li si local yi dugalu ñu ma ci waxuma dara bon ñu gañal ñu ñu demande législative également nekk ma si li si campagne naa def naa li nga xamante mooy sama wareef. waaw li bo xëy na moom moo ko xam soo leen ko su ñëwee si plateau bi ngeen laaj ko li tax moom dugal ma ci mais en tout cas xam naa ni waa Yoff jox nañ ma bopp euh, respecté naa leen respecté nañ ma te amal ku si nekk ñoom amal naa leen njëriñ ñoom amal nañ ma njëriñ. maanaam waaye Yoff jox nañ la bopp mais yow dafa mel ni président Macky Sall la bopp. Ah, président Macky Sall Abdoulaye Diouf la gën a jox bopp parce que moo def telle liste élection locale yi. législative yi gis nga nu mu demee. Hmm. tey moom la ñu jël def ko député assemblée nationale. waaw parce que yow nee nga askan Yoff yow la ñu jox bopp. waaw mi ngi woon ci liste yi te euh, aussi la ko dañuy wax rek euh, déjà euh, moom laa fa fekk. ma nekk ci terrain man 2011 laa commencé créer ce mouvement ànd doole Marème Faye fal Macky mm-hmm. ah, pour 2012. d'accord yow ci militant Marème Faye. ma wër ko biir Sénégal yëpp. Mm-hmm. ak bitim réew. Mm-hmm. bon mi ngi Italie Maroc France Canada États-Unis donc loolu si laa nekkoon ma bàyyi ko moom mu nekk si terrain bi ba ñu ma falee nag la am prétexte wàccaat si terrain bi parce que suñ la falee ngay homme politique il faut tamit également am na loo xamante na ko war a taxawee loolu tax ma wàcc si terrain bi di liggéey ba ma wàccee terrain bi di liggéey liggéey pour son excellence ñoom gis nañ ci kujjee gis nañ ni xëy na damaa bëgg a bëgg pos wala dangam dangam fekk du woon loolu. da mu dem mais est base baa nga fa woon am nga base. bu bu bu solide bu tax ñuy wax base. Euh, en tout cas da ngay da ngeen di ñëw yoof ngeen ñëw micro trottoir da ngeen laaj nit ñi. Hmm. ndegam xam nañ kuy docteur Amadou Ndiaye est-ce que amal naa leen njëriñ est-ce que respecté naa leen est-ce que suñ ma woowee wala ñu envoyé message dinañ ma jot dinaa leen tontu. Hmm. est que seen soxla suñ ma ko waxee dama koy tënk xablu wala dama koy saafara si kattan yàlla. Hmm. loolu rek soo leen ko defee. di nga xam ne amal naa la njëriñ ñoom amal nañ ma njëriñ. wala seen défaite yu répétitif yi. répétitif yi si xam nga xam nga euh, déjà déjà ñun euh, jàngal nañu benn bi bu njëkk mooy euh, local yi amoon na ku ñu buggoon imposer biir Yoff te waa Yoff jox ñu ko bopp moo waraloon ñu am quatre listes. Hmm. ak liste principale muy cinq listes. mooñ suñu doole ñu dem si législative yi booloo waat def unité mais tête de dañoo ñëw sans indi seen seen militant. ay aussi ñu am ci ci biir ay erreur de communication ay wax yoo xamante ni tax na nit ñi bedde beddeeku mer def vote vote sanction loolooy dëgg ji mais du càggan ni ànd ñox docteur Amadou Ndiaye xam nañ ma bew nañ ma te xam nañ ni fi nekk nii doole ji mi ngi ma téye. est-ce que nga ne tey jii sax bu fekkoon ne docteur Amadou Ndiaye la ñu investir. yow war nga mën yow mën naa rëcc. Mm-hmm. ci ngelaw li nga xam ne nii. ouragan ouragan uh, sonko yow ñoom. ñu na leen sax wàllu politique. ñaar ñooñu ngay wax ay. Euh, nit kooku ak ak ku muy àndal même ki nekkoon candidat maire de Dakar bi man rek maa leen wax ci Sénégal attaqué leen mënuñu moo wax dara parce amuñu lu wax ci man ñaareel ba aussi euh, nee naa xëy na euh, ña nekkoon ci lis yi ñooñu ñoo jowul le rôle seen rôle carrément mais man mi nekkul ci si liste ne naa Yoff gi yëpp ak samay moyens fexe ba def toutes les moyens pour que parti bi gagne malheureusement euh, su fekkee ne ñenn ñi ñoo nekk ci biir di yàq tamit loolu tamit mënuma ci lenn. mais est-ce yàq la. bon yàq la parce que parce que euh, non euh, non non cest mu nekk ouragan donc may askan wi bëgg a bëgg xam na lu bees may nuyu monsieur le maire bu bu nekk Yoff également bokkuñu parti Seydina Issa Laye Samb nee naa ko na toog ci siège bi te bañ ko yàq parce que maa ngi ñëw man dama gëm ne <laughs> ah dama gëm ne man maa ñëw doon maire de Yoff te nee naa aussi yeneen plateau sans ou avec parti mm. élection yi di ñëw nii damay présenté wu te damay gagné Yoff mm. ndax xam naa ni amal naa leen njëriñ amal nañ ma njëriñ te dinaa leen déglu voilà. mais mais mais mais <laughs> professeur Amadou Ndiaye euh, c'est c'est que le problème mooy lan la c'est quoi ton problème yow xanaa Macky Sall daf la xamul. non si bon président xam nga président moom ñëpp lay xam. parce que ah, ah, ah toll na niveau information. boo xam ne parce que yow nee nga nit fekkee te ñu ngi dem bay lay du liste liste conseil sax jàlloo ko. xam nga xam nga da nga am doole quoi au niveau de yow. xam nga xel mënu koy nangu xam nga mbir yi. nan lañ demee mooy euh, dañoo nekk ci parti boo xam ne dafa hiérarchisé su hiérarchisé ba pare. Hmm. man tàmm di xëccoo. tàmm ma di xëccoo dama gëm ne lu war a nekk day nekk dama dul xëccoo. waaw moo tax ñu bëri dañ daan wax ne yow doo réussir politique parce que benn da nga dëggu ñaar doo xëccoo du ma ko xëccoo mais lu may def nee naa genn golo gudd na mais lool ci laal borom yëg ko hmm. moi je sais avec leen renseignements généraux avec. Euh, Eh, yeneen éléments yi nga xamante ne ñu ngi am ay rapport di ko jox son excellence xam na kan mooy docteur Amadou Ndiaye parce que su ko xamuloon du ma fal su ma xamuloon du ma fal mais xalaatoo ngeen ñàkkaat euh, Yoff ak yeneen i gox yi ci élection présidentielle yi jëm bu fekkee ne sax seen candidat gu ñuy laam jàll na di njiitu réew mi Macky Sall candidature am daanaka tàq na suuf ci jamono joo xamante ne opposition yaa ngi gën di defaru ngir waajal seen bopp ci yooyu la woote. waaw xam nga candidature moom mënul tàq suuf. Hmm. ndax dama gëm comme ni nga ko waxee fii Sénégal hmm. bépp Sénégalais quelle que soit sa profession looy liggéey yow am nga sañ-sañ déclarer sa mais la kuje gi lañ doom jébaane lañ doom kaas ñoom moom la ñuy def nii ñoom dañoo bugg bëgg choisir ñan ñooy dem ci làng gi waru mën a nekk waru mën a nekk ñun dañoo jàpp ni. mais ñoom kenn ku ne am nga droit déposer candidature bu mu des Macky Sall. non moom Sénégalais la war na mën a déposer candidature am. non yoon nga koy tere. bàyyi ma expliquer di nga comprendre. ndax soo xoolee nii déjà su fekkoon ne moom xam na ni warul mën a bokk. dañu am majorité mécanique au niveau de l'Assemblée ñoom mënoon na modifier constitution bi yóbbu ko fële li tax defu ko donc loolu war na yee sénégal yi ni moom su taxawee ne dafa laaj deuxième quinquennat da ci am droit te ñii gën a fes ci ci ci bi soo leen xool vaar mës nañ ci wax man gis naa vidéo yi ñu ne moom am na droit deuxième quinquennat donc bu ñu bàyyi ba ñëw fii ñu indi propos politique politicien di wax naan war waru mun a bokk docteur Amadou Sall bul jël waxu politiciens yi ah, opposition bi bàyyi moom waxam moom président Macky Sall moom Macky Sall waaw loolu xëy na yéen dégg ko man ah, dégguma ko ah, woon na ko man man man dégguma da nga ne da nga yow nit da ku dëggu laa mais man dama dama lay wax loolu aussi déglu woo ko quand même li ma li ma dégg lu ma dégg ak ba ñuy euh, def def constitution bu bees bi hmm. bañ na ko ba boobu mi ngi woon ci benn mandat de sept ans hmm. ancienne constitution moo ko faloon bëggoon na ko wàññi def ko cinq ans comme ça muy ñaari mandat de cinq ans. mu pare ci. constitution bi ne ko loolu mënut am parce que cour cour de kii. Euh, waa constitution ne ko loolu mu nekk ndax constitution bu la fal pour pour sept ans. donc mu ñëw si la ñu verrouillé kenk euh, mandat président pour cinq ans ba pare teg ci ne kenn mënul def ñaari mandat successif mandat de cinq ans fa lañ ko verrouillé. parce que la preuve ñoom gis nga ñi si gën a ëpp si opposition bi ne leen doom yuuxu si euh, maître Ablaye Wade ba mu nekkee président te pourtant ba mu demee am na ñu ñëwaat toog si plateau yi ne reconnaître nañ na moom amoon na droit nekk candidat sénégalais yi ñooy fal yenn yi dama ne ñàkk gëm yàlla la ku nekk mën na. mën war nekk candidat mais mais mais yi aussi keneen falu fi ku dul njiitu réew yi Macky Sall sept ans yi foo koy def.

dafa réglé woon problème bi bien que président Abdoulaye Wade dafa dem ba ci biir boole ci lu ci bokkul. Mhm. dañu waxoon ne ne léegi mandat présidentiel verrouillé nañ ko ci deux mandats la yem. deux mandats képp. léegi nag Abdoulaye Wade bu muy ñëwee ci la ñëw indi ay problème am loolu lu mu ci yokk wàññi ko. Mhm. jëlee ko si juróom-ñaar indi ko si juróom-ñaar. la ba pare tëj ko si ñaari mandat de cinq ans. waaw mais <laughs> donc loolu la ci def te wuy man man nag caabi boobu moo a jaar. non non parce que déjà xam nga xam nga xam xam nga argument boobu la la la ah di ko teg naan mandat bu cinq sept bi ak mandat bu cinq ans def na ñaari mandat xam la def na ñaari mandat successif donc warul mun a bokk te soo xoolee moom su fekkoon ne warul mun a bokk donc amoon na latitude déjà soit mu dem assemblée. Hmm. wala mu def euh, référendum pour modifier constitution bi defar ko hmm. li tax defu ko donc nañ nañu xalaat loolu te aussi nu ñu amee xel noonu la amee xel donc li tax def ko su fekkoon moom leer na ko ne warul mën a nekk candidat te bëggoon nekk candidat donc mënoon na ko changé changé wu ko ba léegi. mais vu syndrome bi nga xam daloon ab lay en 2011. est-ce que waru ko woon jàngal lu bari non non léegi opposition bi au lieu au lieu muy gëm a toxlu bëgg a forcer pour def. troisième candidature jaboli su dañuy jaboli est-ce que est-ce que gënul woon rafet muy jéem a trois mu muy jéem a trouver benn candidat boo xam da dooleel. xam nga ñun suñu parce que da lay moom noppeetuñu di fal ab euh, di jox président Macky Sall troisième mandat. gis nga yow soo génnee dèjà. gox bi nga dëkk gis nga ni Sénégal changé na ndax mi ngi koy defar. su waxee dëgg rek bu ñu ko fi jëlee defar boobu moo nekkoon premier ministre moo génne woon affaire yi moo moo ko génne moo génne projet yi. non voilà ah, léegi léegi actuellement soo xoolee dèjà. ba ci de dëkk dëkk yëpp fépp boo dem région boo fi boo dem di gis ni xar-xar Sénégal changé na ñu ci sant yàlla ci magistère am moom la déjà euh, teg nañu PSE bi ñu ngi ciy teg ay justement ay plan d'action prioritaire par quatre ans di ko saytu di xool ni ñu doxalee euh, di pour améliorer xar-xar visa Sénégal léegi ku nekk mën nga bëgg ne man bëgg naa nekk candidat ku nekk ci wujje gi ne ne bëgg naa mu nekk candidat d'accord nañ ci mais suñu candidat quand même buñ ko wax buñ ko buñ ko kiiloo buñ ko buñ ko décider kan mooy nekk kan mooy nekk seen candidat suñu candidat wala déet ñun moom moom ko nangu mais coalition Benno Bokk Yaakaar waaw te quoi lan moo leen bi nga xam ne dama commencé na commencé na déterminer bi déjà ñun euh, ñi siy gën a fees wax nañu ne président Macky Sall moom mooy seen candidat moom wax ginnaam ba moom waxagul ñun. APR wax nañu mooy suñu candidat mais li muy yëpp day wane ne effectivement dafa bëgg. non wax ñun dañ ne mooy suñu candidat. Hmm. c'est-à-dire du moom moo taxaw ne dafa bëgg ñun ñoo taxaw ne ko yaay suñu candidat parce que li ma tegagum non xam nga gis nga opposition su yuuxoo fii wala mu def leneen lu mu mënta def du tere xam nga luy am lu war am dafay am hmm. lu war am dafay am Sénégalais yi encore une fois ñuy voté hmm. te Sénégalais yi ñoom nañ ñëw indi leen programme boo xam ne moo gën a alléchant suñu programme bi ñu teg. Mm. suñ ko indee teg ko xëy na Sénégal yi jox leen bopp mais actuellement Sénégal ñu lañ jox bopp te jusqu'à présent ñoo am mm. majorité. mais lu tax amu leen plan B bu weesoo Macky Sall wala njiitu réew mi mooy seen sànni tàccu. xam nga xam nga xam nga sooy wut ay plan B da fekk ni yow ah da ngay jéem a def stratégie pour jéem a forcer su bii gañ bii su jàll gañul bii jàll. dégg nga déggoo sànq lu wax ni su fekkoon ni xam na ni moom candidature waru mën a nekk. changé nañ constitution bu yàgg. mais ñu bari disqualifié nañ ko nag. ko disqualifié c'est une minorité. c'est une minorité de l'opposition. non non. opposition bi sax amuñ ci wàll. mais population bi non population bi ñu ñoo ba kon pour lan ñu am majorité assemblée. assemblée donc jusqu'à présent suñu xoolee dernière élection yu fi jaar. ñun ñoo fi am majorité donc ñu. a ñoo fi am majorité parce que sinon duñ fi ëppalee député. suñu ëppalee député kay ñoom majorité résultat yi yaa ngi nii résultat yi euh, nit ñi mënuñu ko fàtte donc local yi également élection locale yi fi jaar ñoo fi ñoo leen ñoo leen ëppale ba léegi nit ñaa ngi jox bopp son excellence monsieur Macky le président est yoo xam nga ne tey jii bu fekkonte ne président Macky dem nañ élection locale élection présidentielle yi nii lu jàll est-ce que sax du jàll mën na ñàkk ah gisoo ko ba ñu demee Thiès moom sax du bokk si non gisoo ko maanaam mobilisation waaw gisoo mobilisation boo xamante ne duñu du comme ni ko xalaatee ne mobilisation individuelle gisoo Sédhiou déjà nii niñ ko teeroo mais mbooloo yooyu du woote nag ah waaw non gisoon nañ ko teeru wat gisoon nañ ko 2012 bu mbooloo mi la lay dar mooy wote non mais ñun les électeurs bokkul ak ñay dar xam nga suñu particularité suñu particularité hmm. mooy lan suñu particularité mooy ku si nekk si ñun nit ñi yow la ñuy gëm àndax yow foog lañ jëmale fa lañ jëm ndax si vertu caractère yi ngi lay wax ne man ñu bëri ñu ma waxal. <laughs> yéen la ñu gëm te moo leen bëri loolu lañ ma wax de. <laughs> Hmm. mais cest à xool mais cest gis nga élection yi nu mu demee. ngeen mari rando. bari ngeen mari rando. Ah, du du ay mari rando. est que su nekkoo leen di juum. jëmoo ñu de. bu fekkente ne yéen da ngeen bëgg a jël ay euh, euh, nu ñu sax seen mobilisation yii. Hmm. ànd ak président Macky Sall ngeen boo koy jàpp comme benn genre euh, baromètre quoi. non non du paramètre jàpp na ne tey jii boo ah, nga xam nga fan yi lay weesu Thiès googu ngay wax noonu tey jii Thiès googu ngay wax noonu tey jii mais président Macky Sall bu mu commencé di discours siège dafa yaraax kenn nekkatu fa mm-hmm. ñëpp dem nañ mm-hmm. ah. sa sa la sa analyse la ah loolu waaw vraiment ba ngeen ay sa sa analyse la man gisuma loolu ah, loolu waaw ña lu ma gis mooy ba léegi ah fan yële wees lañ commencé di def vente des cartes di jaay suñuy carte suñuy militant mm-hmm. nañ di ko jënd ñuy saytu xam ñaata sénégalais ñoo ñu jox bopp fu mu toll nii loolu dafa leer <laughs> loolu loolu loolu loolu loolu ay ay ay base factuelle la yi nga xam ne lu leer la du ñu inventé baneen bi aussi dañoo bëri ay identité remarquable identité remarquable yooyu ku si nekk am na mbooloo boo xamante ne yow yow la gëm mi ngi sa ginnaaw. mais ñu jël euh, lépp jël ko jox ko jox ko son excellence monsieur président de la république. mais docteur ah. carte vente carte quand même. waaw ah. hmm. mën a saytoo. a déjà soo xoolee soo xoolee yow. jox naa la ay firnde xam nañu xam nañu politique. waaw sëñ naa xoolal sëñ jox naa la jox naa la ay ay ay firnde. docteur moom mooy dem jënd plus de 200000 cartes. 200000 cartes

y a tant de sénégal yoo xamante ni ñooñu jox bopp. mais 2019 ba léegi nag yi basculé na de. yëf yi wàcc na de non basculé wul xam nga fii xam nga am na ñoo xamante ne dañuy ay yéekat fitna lañ. Hmm. yéekat fitna ala kulaal yi ba Sénégal di Sénégal duñu mën a toog ci bopp réew mi ah ndax mag yi dañ fi ñaan. Ah lu leer laa la wax. Sénégal dëkku jàmm la. discours bi nga wax nii maa ngi fàttali ko ay jamono doon nañu ko tenir si dëkku jàmm la. ku fi indi ay saafara ay féewale yi tout ça voilà non du lu leer laa la wax. non Ablaye Wade laa wax. Ah. discours bii nga doon daan nañ ko tenir jëmale ko ci dafa xaarañoon ci esprit nitu esprit dafa am vision. léegi ñi fi nekk nag Macky Sall aussi noonu la mel parce que moo ko formaté moo ko yar tete ko dafa xaar am vision vision boobu la ñuy topp nii te ñu ngi koy gis ni Sénégalais ñu ngi siy gis seen bopp mi ngi feeñ. les opposants bi aussi opposition bi non. am na opposition bien sûr am na am am na opposition maa ngi gis ay amul ay visionnaire quoi ça veut dire bon mais ko Sénégalais yi que nañ ko proposé Sénégalais comme ñun ñu proposé également suñu PSE bi nañ ko proposé Sénégalais su fekkee moo gën suñu boss bi ba ñu def débat di de ñu xool ne moo gën Sénégal yi xool fa la ñu tànn. mais tey opposition bi la leen leen euh, temps pour que vraiment ñu mën koy wone. ah si ngeen leen di jàpp di leen xam nga xam xam xam nga nag. xañ leen seen ak ak yelleef non non xam xam nga man lan la liberté d'expression tàmbalee tumuranke lool lan la d'accord hmm. dama d'accord ne nit boo bëggee a manifester. dañ ko war a bàyyi mu manifester mais ci kaw mu dëppoo yoon. ginnaaw ba yow boo bëggee manifester doo génn sa kër rek manifester da ngay demander autorisation ko koy demander xaaral réponse soo ne wii nga def su ne noonoo nga wutaat beneen dal loolu laa gëm mais ñu ne la noonu nga ne da ngay forcer mais problème day am. Macky Sall na fa moom moom lu muy def moo njiitu réew bi tournée économique la. du campagne déguisée. non tournée économique lay def. tournée économique xam nga d'ailleurs suba. conseil de ministres non tey sax mercredi suba. conseil des ministres fa la koy tenir. mais mais foofu ngeen di nattee seen électorat yaa ngi wax mbooloo. non non du du après Thiès non euh, du nattu électorat. Mm. dañu bëgg woon wax sénégalais ne ñun ñi ax ñii di wax bokkuñu ñuy wax ñu dañuy liggéey ñu gis. mais est-ce que aussi euh, docteur. du du nga baal ma si wax ji est-ce du gàcce ci président Macky Sall ngay dem ci ay région yoo xam ne sa hôtel bu baax sax ba mu mën dëkk ma amul. am na ku maire boo xamante ni ci ku jege la nekk fa la nekk moo fa gagné li tax defaru ko te am na budget mais li taa defaru ko wala su wala wala su étudiants yi fa nekk si localité bi génn di di manifester parce que jox ñu leen seen i seen i seen i bourse foofu li tax waxuñu ko mais moom moo waroon a ñëw indi programme gañe localité boobu non dafa naan dafa gañe localité bi su gañe localité bi Sédhiou ñu ngi ci commune Sédhiou voilà mais Sédhiou ba moom ba muy dem xam nga président suy dem fen dafa am protocole bi ñu noon ko fii ngay dal fii gouvernance ba fa la daal protocole bi ñëpp ko ñëpp xam ne fii la war a dal fa la dal parce que foofu kooko fa nekkal. gouverneur parce moo ko xaw a moo moo ko fa nekkal non non mënul dal faneen fu foofu parce que kooko fa nekkal. mais ñeneen ñi nag fu ñuy dal. bon ñeneen ñi ne dañ de foofu Sédhiou am na ay hôtel am na développement local gi waral amul ca ca ca des na. ci lu bëri bari moo tax mu dem saytul boppam. àndax ak ànd ak gouvernement bi yëpp. demoon na fa 2015 ñu xool waaw demoon na. 2015 def ay ay ñu jël ay mesures. di fa plus de deux non def jël ay mesures. Hmm. xool ci évaluation parce que soo demee plante xam nga soo soo jiitee doo ñëw war yi tëma tëma yi da ngay planifier ba pare am ñu exécuter nga ñëw évaluer. actuellement bii day ñëw évaluer ba pare su yi nga xam ne pàcc yoo xam ne des na ñu def plan d' xool nañ la ko koy saafara. loolu moo waral tournée économique. mais naka la mën a defee euh, fii ay na tournée économique ak gars yi dañu jàpp ne tournée tàggatoo la tàggatoo parce que sénégalais yi doyal guñ ci moom. sénégalais yi doyal guñ ci moom. tam ñun ñi doyal guñ ci moom ndax mi ngi liggéey ñu gis sans par parloo sans par parloo su liggéeyul woon dañuy taxaw ne liggéeyul hmm. mais mi ngi liggéey ñu gis hmm. daal jàpp mu ngi liggéey daal. mi ngi liggéey yow dèjà fii nii balaa ngeen di soo xoolee nii seen seen pont bi su paree nii fii yow dem ak dikk bi dafay yomb. dafay yomb nga dem ci àll bi foo mënta dem tali defar nañ ko ba mu yànj électricité électrification rural bi. ndox bi mais loolu wareefu wareefu njiitu réew la. waaw mi ngi koy def képp ku ñu mi ngi koy def euh, waaw mais loolu nag il faut ñu koy mm. reconnaître ko ne def na lii mm-hmm. naam xëy na yaakaar nañ ne lu mu waroon def war na ëpp des na mm-hmm. mën naa d'accord mais defu fi dara non comme ñenn ñenn ñi loolu lañ opposition loolu nga def dañu war a dem service commercial ñu tàggatoo euh, laata waaw c'est-à-dire que pour xamal ko rek ne ko actuellement ñi na mais def na fi ñaari mandat léegi moom la mu mënoon ok yow d'accord nga ni liggéey na quoi mais jeexal na jeexalagul jeexalagul parce que des na ko benn mandat de cinq ans mais opposition bi nañu muñ nañ mu ñu xam ne mandat de cinq ans bi su ko defee ba pare nag mun nañ taxaw indi discours bu ñuy dis indi actuellement. la daloon wàdd bukki bu màttoon wàdd. Hmm. du màtt Macky Sall. Ah, ko xam mu leer. gars yi nee nañ troisième na leen ñoom dañ bu màttoon wàdd. du màtt Macky Sall. Ah, ah, noppi. dafa noppi bañ mën ko si débat bi sur le ba jaxase xelu Sénégalais ñun nag noppi ñu. ay ay di wax jërëjëf <laughs> jërëjëf Abdoulaye Bob mi ngi noonu. voilà bon di leen gërëm di leen sant. ak euh, Abdoulaye Bob gis naa ni ngeen may caxabale. Euh, ah. <laughs>